parce que ñun wax ci duñ ko bàyyi parce que ñun on considère que Sénégal kese moo ñu ñor fii yàlla rekk fi nekk calcul politique nekku fi kon nag Ousmane Sonko maa ngi lay gërëm di sant parce que tu m'as convié aux activités du m wante nga may ma nag ma fé la ci kanamu askan wi nii Ousmane. di nga ma jëgal ci kàddu yi parce que kooku suma yoon newu ci wante suma yoon mi ci dama ne yéen Macky Sall la may déglu te may seetaan te duma waxantu si vous ne vous mobilisez pas Sonko bi septembre du ñu génn septembre te gars yi waa ji du ko jàpp dama ne man du ma waxantu Ousmane Sonko bii nit daf wax na leen am na jabar am na doom am na ay mbokk wante au-delà de Sonko c'est la démocratie sénégalaise qu'on va agresser te duñ ko nangu dama ne mbokk yi waxu démocratie la wax place bi yàgg na fi taxaw te yàgg na fi xeex te chaque fois yàlla daf na te surtout dañoo am ci ndam mobilisation résistance loolu mooy démocratie loolu mooy patriotisme je m'adresse aux étudiants de Cheikh Anta mobilisez-vous pour le 23 répondez à l'appel du MDD je m'adresse aux ambulants je m'adresse aux mécaniciens je m'adresse aux chômeurs je m'adresse à ce vaillant peuple levez-vous et mobilisez-vous il s'agit de votre avenir bu leen may Ousmane Sonko mu leen a que jàng na macha allah su ko neexoon tey dem wuti liggéey bitim réew wala dem def leneen jàng na génn école dem wuti liggéey dugg administration di liggéeyam réewam ba ñu dàq ko ci la lan ndax askanam jóg leen te ngeen taxaw bëgguñu xam ku ànd ak kan suñu yoon na wu ci ñun Sénégal mooy ñor suñu eggee nag ci élection ku mu neex nga sànni a xob ci ku la neex wante Sénégal bii à partir d'aujourd'hui il n'y aura qu'un seul otage dans ce pays. ce sera Macky À partir de maintenant, ce sera le seul otage dans ce pays parce que Macky Sall a décidé de prendre en otage la démocratie sénégalaise. La démocratie sénégalaise n'a pas de couleur, elle n'a pas d'ethnie, elle n'a pas de confrérie, elle n'a pas de religion et elle ne t'appartient pas à Macky Sall. wax ji tax ma leen di ko wax parce que ci démocratie ci lépp xaj y compris changement changement nag dañ koy a ci élection parce que loolu mooy démocratie te Macky Sall nee na moom fas yéene wul organiser élection Sénégal tey nag dinañ xam Sall dina organiser élection wala du organiser élection te wax jooju nag dama ne mbokk yi lu may wax dafa am solo Macky Sall nee na leen da ngeen di dem élection le 23 janvier 2022 lépp ay kàcc la. am na ñu amul carte électeur fi yëkkati leen seen loxo yi waaw yéen nag ngeen ñëw taxaw fii ñu ngeen ay doomu Sénégal ngeen wante yoon te yéen du ngeen bokk fan la ko teg yéen loi bi moo ne Macky Sall lañ lay dégg la loi électorale nee na at bu nekk mu am élection ak ñàkk am élection at bu nekk premier février ba 31 juillet képp kuy doomu Sénégal nga bëgg bindu commission mairie bu nekk commune bu nekk day am commission ñaari at mi nii Macky Sall lank bañ teg commission wante moom ci ñaari at yooyu moom dugal na ci fichier bi quatre mille nit xamuñu sax est que ay doomu Sénégal lañu mu ne ñoom dañuy voté wante yéen du ngeen voté kooku dinañ ko lijjanti à travers la mobilisation Macky Sall nee na du ngeen jot ci carte électeur yi parce que tant que amul commission foog ngeen dem ci commissariat de police te su ngeen fa demee da ngeen di jox ay carte d'identité bind ci yéen bokk leen ci fichier bi loolu tamit mobilisation bi dina tax mu gàkk bu ci des Macky Sall nee na moom 2022 bii fas yéenewul organiser élection locale mooy ak élection député mooy législative mobilisation bii dina ko lijjanti Macky na moom lu mu ndam mooy jël législative te mu ngi may déglu dàq ko ba 2024 parce que gis ngeen dëkk bi gis ngeen lu fi xewoon ci mas dernier lu tax mu wax leen waxu élection locale somnifère la daf leen bëgg a nelawal ngeen tàpp seen xol yi ñu dem ba 2024 ngeen yaakaar am présidentielle mu joxaat leen beneen somnifère ne leen député la dama ne 2024 présidentielle qui part pas de présidentielle qui part d'accord ngeen wala d'accordu leen d'accord ngeen wala d'accordu leen

ngeen gën a góorgóorlu ci taxawaay bi parce que dëkk bi une fois de plus les problèmes de ce pays ne seront pas réglés par les hommes politiques les problèmes de ce pays sont réglés par le peuple sénégalais ñu ngi leen di gërëm di leen di sant le 23 juin nag maa ngi ñaax waa M2D kooku mooy wax manifestation dañ koy préparer on doit aller dans les marchés les gares routières à l'université dans les grandes places

jaajëf benn otage moo fi am